et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai mènerai des actions similaires avec la même application pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Le peuple sénégalais a compris et choisi ce, projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre le moteur de notre sursaut. au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction d'elle sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise ambiante. tourner cette page pour les et nous mettre en la travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Sénégal peuple sénégalais wax ne lii xew ci élection boo xam ne ndamal peuple sénégalais la wone ndax askan Sénégal mii dafa xeex pour que élection bu ñu mayee moom ñoom lañ tànn doon ñoo xamante ne fekkee nañu li xew fekkee nañu tamit fu ñu utee pexe te jàpp nañu ne te jàpp nañu ne taxaw nañu ci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 laata ñuy egg ci élection li fi jot a xew tax na mu am ñu ci am ay gaañu gaañu am ñoo xamante ne ñàkk na ci seen bakkan fondation des institutions l'allègement sensible du coût la vie dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, retrouver l'espoir qui a été suscité par